wajalilaahi jafe-jafe dem dikk fës lool ci dëkk bu sell bi Touba rawati jamono nawet dëkk bu sell bi di waajal li nga xam ne moo jëm ci màgg lu tubaa Touba ca kanam taxaw temm ci jàppale askan wi génne ay koppar yu takko takku dugal ko ci defar ay raj yi maam Thierno Ndiaye. fi may wax ak yow fi ma taxaw nii di wax ak yow mooy rajo bi ñuy woowee rajo Daaru Minam rajo Daaru Minam boo xoolee sama côté nii. Euh, mën naa ne quatre carreaux moo dese euh, entreprise bi ci li nga xam ne moom la war a couler ci rajo bi. Euh, loolu nag tey jii fas na ko yéene pare kon day mel ne fii ma waxee yow tey dina pare li lépp loo xam ne rajo la. bu ko defee mu desee ko ñaari dalle de transition yi te yooyu bu ci nekk ci benn fan la koy couler ak trottoir yi kon day mel ne fii bu ñu waxee ñi ngi ci quatre-vingt-quinze pour cent ci liggéey bi. foofu lañ toll ci liggéey bi jamono ji fi ñu woowee xaayra foofu tamit ku nekk xam na ne def nañ fa beneen raje euh, boo xamante ne bi moom tamit raje bu gudd la euh, raje boobu tamit boo xoolee suba incha allah war na pare li nga xamante ne bii mooy lépp luy kuulaas ndax moom dafa bokk ci yi nga xam ne dañ ci doxe woon urgence maanaam dañu luyee wala dañu jënd beton prêt à l'emploi nga xam ne tuppi mooy ñëw di ko kuule loolu moo waral tuppi bi mooy ñëw di ko wàcceel tuppi nag bu lay wàcceel dafay gaaw journée bi boo waroon a kuule 4 euh, karo mën nga ci kuule ba 15 karo wala ba 20 karo kon euh, rajo boobu tamit boo xoolee subaak jàmm lañ programmé mu pare ci lépp loo xam ne rajo la mu dese mu dese ko moom tamit ay dalle de transition kon day mel ne pourcentage su xaayara moom tamit foofu la toll. Touba ca kanam yemul ci loolee ndaxte fi nga xam ni moo tolloog sel bu garage Daaru foofu taxawal na fa benn rajo. bu dee rajo bi nga xam ne moom lañ def fële ci Shell garage Daaru mos noonu lañ koy woowee mooy bu fekkee da ngaa jógee garage Daaru mel na kuy dem mbaar am na difficulté yu amoon foofu foofu rajo bi pare na depuis boo xoolee moom fii ak trois jours war nañ ko mën a tijji ndax euh, moom euh, biñ ko tijjee ak biñ ko paree ak léegi mën na 18 jours bu ko defee desee na ko tuuti ay finition rek foofu. gannaaw konis xayra corniche daaru minam ak rajo bi nga xam ne moo tolloog sel bu garage daaru tubaa Ca Kanam defar na yeneen liggéey ca hôpital jéemul benn rajo waaye it rajo bi nga xam ne daal na koy defar kër Serigne Modou Mamoun Niang rajo bële nga xam ne moo nekk fa la ñuy wax jéemul euh, ku nekk xam na ne yoon bi jëm jéemul dafa tëje woon ba Touba Ca Kanam bi mu ñëwee dafa programme radier ak enrobé maanaam godron radier bi nag pare na bu yàgg boo xoolee def na 10 jour bi mu pare ak léegi bu defaatee ay 10 euh, jour rek day mën a tijji moom tamit. kon day mel ne foofu am na enrobé bu ñu fa war a def fii ak 2 jours incha allah war nañ ko tàmbali bu fekkee asamaan si mi ngi neex daal. que suñu Mor Mamadou Niang tamit moo jéemul parce que ñoo bokk programme dafa am rajo am li ñuy woowee Euh, enrobé maanaam godron kër Sëñ Modou Mamoune Niang tamit rajeem pare na pare na depuis cinq jours boo xoolee moom boo amaatee quinze jours rek day mën a tijjeeku kon day mel ne foofu tamit enrobe bi euh, traité nañ euh, tout venant bi ba pare fi mu toll nii ki nga xam ne moo ñu jaay enrobé bu ñëwoon suba suba mën na teg enrobem bu ko defee foofu kon day pare ku nekk xam na ne liggéeyu nawet ak jafe-jafe ñoo ànd mu mel ne fii may waxee yow rek bu dul woon nawet bi pare nañ bu yàgg mais am nañ ay tardement yoo xam ne nawet bi moo ko causé tardement yooyu nag li ko waral mooy bu tawee euh, fii euh, waa sapeur yi ñoo fi defoon seen pompe doon pompe mais pompe bi dafa yeexoon. dafa yeexoon trop trop ba à la fin euh, xaar nañ ba sonn mujjantal bi Touba ci kanam dafa mujjee jël ay pompam pompe boppam wut ay ay tiwooy boppam ñëw évacuer ndox mi rien que pour réussir. Euh, chantier bi waaye loolu bu chantier bi pare tamit dafi des day day des fii di pompe ndox mi nga xam ne daan na taa fii. lii lépp di ay liggéey yu nga xam ne Touba ci kanam moo ko sumb ngir jàppale askan wi ci dem ak dikk ci dëkk bu sell bii di tubaa rawat ci jamono nawet. di gën a ñaax murid yi rek ñu jàpp ci liggéey bi xam ne yoon yi bu ubbeekoo dina amal askan wi njariñ lool lool lool ci biir màggal gi ndax ñi jógee côté dakaar bi Thiès ba Mbour ak côté yooyu yëpp bu ñu wàccee ñenn ñi dañuy jaar côté gauche bi. ci ci corniche bi nii dañuy jaar côté gauche bi foofu euh, rajo bi fa nekkoon euh, euh, toj-toj ba fa nekkoon décanté nañ ko ñeneen ñi dañu jaar côté droite bi ñaari toj-toj yi fa nekkoon tamit décanté nañ ko kon ñi nga xam ne ñi ngi may dégg nekk Dakar wala ñu nekk feneen bëgg a dugg Touba toj-toj yi leen daan gàllankoor ci nawet bi ci kaw corniche bi muy côté droite bi lijjanti nañ ko muy côté gauche bi lijjanti nañ ko. di rek ñëpp di jàpp ci Touba kanam ba noppi di remercier nag commission réalisation ci. jàppandal gi ak euh, disponible bi. lii lépp di ay liggéey yu nga xam ne Touba ci kanam moo ko sumb ngir jàppale askan wi ci dem ak dikk ci dëkk bu seel bii di Touba rawat ci jamono nawet. Touba ca kanam. mi ngi fàttali jullit ñépp rawatina taalibe yi sëriñ Touba yi ñu gën a farlu ci dëkku Serigne Touba bi gën a taxaw temm ci saafara jafe-jafe yi dëkk bi ndax lu mën a nekk la lu gox sori sori lu mu ruqi-ruqe lu mu jege-jege si biir Touba tuubaa ca kanam mi ngi koy bàyyi xel te am yéene saafara seeni jafe-jafe ci kaw nag ñu gën a farlu bu baax ci ñaari téeméer yi di ko soñña ci biir kër yi ci quartier yi ci marché yi ci charrette yi ak oto yi ci mbootaay yi ci daayira yi ci jumaa yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bu wér ci dagg reçu 1000 francs yi wala ci 12000 francs yi ku ko mën sax nag nga di si boole carte membre bi. képp ku bëgg yónnee sa àddiya ci Touba ca kanam mën nga télécharger application Touba ca kanam ci Play Store wala Apple Store am na Wave am na Orange Money sax sa carte bancaire ak foo mën a nekk ci àdduna bi boo bëggee itam mën nga ko jaaralee ci numéro bi 78 544 33 33 am na Wave. am na orange money lépp ngir tuubaa gën a jëm ca kanam di ñaanal sëriñ Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool.